Moustapha Dieng maa ngi lay nuyu. madame Moreau maa ngi lay fay. Moustapha Dieng nga nekk coordonnateur taxawu Sénégal ca Koumpentoum actuellement nag sénégalais euh, li ñuy xaar mooy déclaration de politique générale bu premier ministre Ousmane Sonko ci 13 septembre bile euh, lan nga si mën wax euh, Moustapha Dieng. waaw li ma ci mën a wax xam nga Sénégal mu ngi am premier ministre le 10 février le premier ministre. xam nga depuis boobu ba léegi ñaari premier ministre kese ñoo deful déclaration de politique générale en 1983 muy Moustapha Niass contexte élection li xamoon nañ ko ñaareel bi mooy le premier ministre Sidiki Kaba mooy fin wu règne président Macky Sall donc pour dire que tey su su buggee dem foofu li ma ci xalaat président de la république moo informé ni ko yoon mayee mu wax assemblée nationale sama premier ministre dañoo def si déclaration politique générale te yaakaar naa déclaration de politique générale do saf mais opportunité la bu ñuy may premier ministre mu ñëw wax ak askan wi comme moom mooy élimaani jëwriñ bi ne leen ah man de jàkka ji su neexee yàlla nangami rakka la ñuy julli mais ci biir julli boobu noonu bala ci wàllu wér yaram lii lañ fii lañ bëgg a jëmale réew mi ci wàllu mbéy ci wàllu càmb ci wàllu fépp loo xam te moo nànk développement réew mi ba lañ ko war a jëmale wax ak sénégalais mais aussi rassurer communauté internationale bi nga xam wala partenaires yi tey ñu nga xam ñu ngi yëngatu Sénégal wala wala ñu ngi bëgg dugg ci Sénégal donc gëm nañ ne nii lu mu war a def la comme ni ko ñeneen defee woon. Euh, d'accord est-ce que parce que ñu bëri aussi ñu ngi euh, ñaaw njoxtu ne boo moytu DPG bi du du du am parce que peut-être euh, fii ak le 12 président mën na tas assemblée genre piège la daal buñ lal opposition bi. wala effectivement loolu la ñu yaakaar mais man dama gëm réew du caaxaan réew état la président de la république coobare bi ko constitution may moom moo informe assemblée nationale sama premier ministre na ñëw te di fàttali moom mënul daane assemblée nationale bi avant le douze mënoo kaa daane le douze après le douze la ko mën a daane maanaam le treize jëm ci kaw léegi ndax moom mënul convoqué assemblée nationale wax leen sama premier ministre dina mu jàpp bésam ba pare jàpp datam ba pare ne sama premier ministre dina ñëw ma jaar foofu ne du ñëw su kooku ñëwul li tubaab di wax déjà trahison haute trahison moom président da day fekk trahir na réew mi parce que def ne day respecter loi et règlement bi mu waatee dina def pexe ba ñu respecter ko te kim fa yebal premier ministre am donc ñun man li ma gëm ni nii eh, Ousmane Sonko dina ñëw su ñëwul nag mais su boobaa lépp luñ ci góobee gar su te dinañ xam ne donc ñun amuñu ñu njiit am kàddu amuñu kàddu ci làmb amuñu kàddu ci bind parce que doomu aadama ñaari mbir la administration bind la mais doomu aadama aussi kàddu la te moom moo fi waxoon man maa ñaanoon sama premier ministre mu xaarandee xaarandeegum ba ñu jooyante règlement intérieur suñ ko euh, jooyantee dina ñëw donc gëm naa ne nii koo xam ne nii euh, waroo koon ñam da ko war a jox ndigal ñaan nga ko rectifier nañ règlement intérieur donc dañu war a xaar président Ousmane Sonko incha allah le treize à l' assemblée nationale wax ak sénégalais wax ak communauté internationale ak bailleurs hmm. est ce que aussi ñu ngi ragal motion de censure taxaw est ce que d' accord na si ñu dugal motion de censure waaw wala déet parce que aussi loolu mën na xaar Ousmane sonk ca assemblée nationale. waaw man d' accord ma ñu def motion de censure parce que motion de censure amul njëriñ di fàttale benn motion de censure moo fi mos a am 1962 bi Senghor amee problème ak Mamadou Dia motion de censure boobu kër président Feu Lamine Gueye lañ ko voté woon defee ñu ko woon assemblée nationale. donc tey te aussi régime bi ñu am de régime parlementaire parce que tey même la treize su président premier Ousmane Sonko ñëwoon def déclaration politique ñu def ko motion de censure par exemple à dix huit heures président Diomaye Faye mën na reconduire gouvernement bi. fekkoon dañoo mel ni ay régime parlementaire ay Angleterre ay ay Allemagne mbala réew yu mel ni Israël réew yu mel ni Espagne kooku nga xam premier ministre mooy conduire politique bi kooku tey bala France bi sax euh, parce que soo amul doole assemblée nationale sa premier ministre du liggéey mënoon nañ ko njort mais tey ñun dañu yaakaar réew mi lu mu soxla stabilité réew mi lu mu soxla ñu liggéey ko parce que da li tubaab di wax urgence de l'heure dafa am mooy lan mooy njàng ñu war a école di ubbi nawet bi ñu nekk dundu gu cher gi accident yi di am loolu mooy suñu urgence donc tey ñun gëm nañ ne ni duñu contribuer ci lii na saxaar réew mi mais lépp lu nga xam dina indi stabilité fa la ñuy gis Sénégal taxaw Sénégal parce que ci lañu juddu ci la ñu màggee te duñu déroger ci suñu position boobu. fi ñu toll nii taxaw Sénégal naka lay préparer éventuelle élection législative yi. waaw élection législative xam nga ndax ni ko ni ma ko waxee sànq depuis l'an 2000 gëm nañ ne nii. benn nit rek dañuy wax soo bëggee gaaw demal yow kese mais soo bëggee eh, sori àndal ak mbooloo te gis nañ Yewwi Askan Wi li mu am ci élection yu weesu lan moo ko may doole la mbooloo la donc au soir du 24 mars 18 candidats presque yëpp opposition lañ nekk am na ndax ñu ci génn dugg ci gouvernement mel ni Cheikh Tidiane Dièye candidat la Habib Sy mu ngi foofu donc soo génnee à part ñooñu 16 yi mbala 15 yi des te opposition lañ nekk te dañu gëm na ni il faut benn opposition front mu mag ñu jàkkaarloo ñoom dem wuti ay baat parce que dañoo jàngat depuis Senghor ba tey assemblée nationale nguur gi fi toog su fa amee doole lu ko neex lay def donc nag comme kundo bin matt samaam soo séenee lu ñuul daw ñii nax waruñ nanguñu am une majorité mécanique au niveau de l'Assemblée nationale. donc il faut que ñu travaille ba ñu imposer leen cohabitation bi ñu naroon a imposer le président Macky Sall su ñu ko mënul am ñu am ay limu député yi nga xam ne nii yenn loi yi ñu niw def ko comme euh, lettre euh, timbre à la poste donc dinañ xeex organiser wu dans l'opposition def un grand front di waxtaan ak Sénégalais yi wan leen ni nii mi il faut que ñu équilibrer force yi te fan lañ ko war a équilibrer assemblée nationale mooy espace de dialogue et de concertation bi xam ne ay ndaw réew mi nga xam ne que ni ñoo leen fetal yóbbu leen fa ñu waxtaanee nan lañ mën a yore réew mi ñii saytu budget yi di ko voté saytu loi yi di ko voté mais aussi contrôler action gouvernementale. actuellement ñu ngi wax lu ñuy euh, tuddee banque de la diaspora. Euh, mm-hmm. waa taxawu fëgg seen dënn ngeen euh, lu ni mel projet wu Khalifa Ababacar Sall la est-ce que mën nga ñu expliquer lan moo tax ngeen ne Banque de la Diaspora seen projet la yéen waa taxawu waa xam nga président Khalifa Sall bi nekkee maire de Dakar 2009 mos a voyagé dem Canada naat dajaf ak doomu Sénégal yi mu seetlu aussi koom bi ñuy dugal ci réew mi soo seetloo presque moo ëpp lu ñuy wax l'aide publique au développement mooy réewu tubaab bi lu ñuy dimbale parce que ñoo yore kër yi da ngay gis kër tey su weer dee ci nekk bitim réew mooy yónnee pour ñu mën a jënd dépense te loolu xaalis boobu am na noo xam tey suñ ko organisé au lieu que ñu nekk ay ñu ñuy yor dundal yi dafa war a nekk investissement ñu mun ci liggéey defar ci ay tali defar ci leneen ay investissement ba nga xam Sénégal dina ci gagné mu bañ a nekk ay dépense ci donc loolu président xalifa Sall ci la ko waxtaanee en 2009 avec la diaspora Canada yàlla def aussi 2019 nekkul candidat. ñu defoon ko ci programme deux mille mu voyagé li ma koy wax moom moo def jaww ji def jéeri yi def ndox mi donc bi mu demee Italie dem fii yeneen dem ba États-Unis soo fàtte am na fu ko benn xale parce que duggoon sax di ko uyee ci la proposé la banque de la diaspora mu confirmer ko mu ñëwaat Sénégal dem dëkkam muy région de Louga parce que moom foofu la cosaanoo mu xam njàmbur njàmbur yi dañoo voyagé lu bari mu proposer leen aussi ñu def benn banque de la diaspora ndax mu nekk quatrième source de financement donc kooku soo seetloo 2009 ba tey mu ngi ciy wax maintenant ndax dégg nañ am na ay vidéo yu dégg président Macky Sall di wax bàkk de la diaspora président Ousmane Sonko wax ko mais suñuy wax idée bi ko xam ne tey moom mooy wéyjuru moo bi mbala idée bi mu ngi tudd Khalifa Ababacar Sall donc moo tax ñu réclamé wu ko ne tey suñuy wax banque de la diaspora président Khalifa Sall moo tax ñu ni mu tegeewoon yéen noonu la génnee idée boobu malheureusement les sénégalais amuñu confiance ci projet dénk nañ ko keneen mais xam ne ni idée bi moom la programme bi programme euh, nga bëgg a wax aussi ci discours à nation bi nga xam ne njiitu euh, réew mi euh, ñu ngi ko ci xaar lan ngay xaar ci njiitu réew mi ci kàddu gu mu war a yëkkati. waa ci fàttali daal parce que lim ci nar a wax sax presque dafa mel ni premier ministre waxaat na ko ba pare junj na ko mais di fàttali taarix ñun bi nekk gone fekkee président am heure woon. su ñibbisee aéroport Léopold Sédar Senghor day def adresse a la nation ne demoon naa bitim réew ñibbisee fan naa fa jé ñu posé ko ay question après mu door a dellu palais donc lim nar a def ni du guleet ce n'est pas une première donc xale yi nekk fi tey dañu war a xam loolu leneen li ni ma ko waxee déjà premier ministre am ni ñu wax paaka jiitu na borom ci mbar ba pare junj na lu muy wax qu'est-ce qu'on y attend euh, pas grand chose parce que wax na ko ba pare euh, xam naa ay affaire audit lay wax wala fu mu fekk réew mi situation du pays lay wax ba pare premier ministre nee na ministre dinañ jël relais yi def ay explication donc pour man nag ce n'était pas le moment foofu la ko war a waxee euh, mais dañ koy déglu rek mais ñu jàpp daal président bu tukki ñibbisi wax ak askenam du guleet yàgg na fi am émigration irrégulière bi ba léegi mi ngi continuer euh, Sénégal di ñàkk ay ndawam yan kàddu nga si mën a yëkkati toujours di ko ñaawloo rek moo tax tey Sénégal ñun dañu war a tàggat suñu ndaw former leen parce que Europe dafa am lu ñuy wax population vieillissante ay mag rek a fa nekk soxla ay ndaw ñu ñu am ndaw mais amuñu formation donc il faut que ñu am benn politique migratoire bu organiser wu former suñ ndaw yi ci secteur yëpp ci élevage ci agriculture ci menuisier métallique ci menuisier bois ci chauffeur teg leen ne Europe ku bëggati waxal ak ñun comme ko américain yi defee dans le cadre du Peace Corps corps de la paix ñun ñu defi appel ne ah ñun mais nag su aussi dafa war a leer xale bi dëkk xare xanem wala bi dëkk bamba càllen wala bi dëkk sincu tabaraani am les mêmes chances que xale bi nekk fii ndakaaru njaay xale bi nga xam ni amoo mbokk ministre am mbokk directeur général am les mêmes chances que koo xam ne ni am na mbokk ñu organiser ko de sa de sa fet képp ku bëgg a dem nga am chance nga dem ñu yóbbu la nga dem liggéey fekkee da nga am chance toog foofu nga toog te ba pare aussi sànq fàtte naa am na lu ñuy wax l'immigration circulaire mooy tey ñi nga xam am na Europe dafa am quatre saison dafa am benn saison boo xam ne kenn du liggéey c'est l'hiver neige la ñoom dañuy bëgg a ñëw Afrique sax daw si fi parce que day sedd sedd bu ëpp mais période boobu day fekk ñun ñu ngi ci nawet su boobaa ñooñu nekk Europe dañu war a ñëw encadrer suñu béykat yu nekk bala encadrer suñu suñu éleveurs yu nekk su période bi jeexal aussi ñu donc loolu aussi ce qu'on appelle l'immigration circulaire loolu idée Khalifa Sall la ñu bëri xamuñu loolu donc immigration bi pour ñu mën koo régler il faut que ñu jël ko à bras le corps former ndaw yi yëgal leen ni nii aussi leneen li il faut que ñu valoriser suñuy ressources xale bi nga xam tey mu ngi ndakaaru njaay mbala bamba ci àllen ci àll Medina Yoro Fula ay soɓul de muy liggéey foofu mën a faj aajoom nit ki foo mën a nekk faj fa sa aajo rek doo am beneen envie dem feneen parce que daf lay wóor sa kër ngay fanaan sa nga yeewu di lekk sa cere yenn coono yi doo la ci fekk donc doo am envie dem doo ñëwee tamit Europe mais soo gisee nit dem Europe deux mois trois mois commencé tabax yow nga nekk fii béy nawet amuloo dara mais da am di dem donc il faut que ñu repenser waat l'immigration former ñu bari dañuy jàpp ne euh, Ousmane Sonko dafay wax wax yoo xamante ne euh, le président de la République moo ko waroon a wax comme par exemple mi annoncé wàcce gi ñu wàcce Aminata Mbengue Ndiaye Abdoulaye Daouda Diallo discours à la nation ak reddition des des comptes lan nga si mën a wax. waaw xam nga man premier ministre bu jubbu ak président ay homme de confiance la war nekk. soo gisee Abdou Diouf euh, dafa am lu tax. boobu ba nga quinze yëpp loolu kenn du ko ñaawlu mais daf dañuy wax paaka kenn du ko jiitu ci baram dafa am loo xam ne état bi dafa organise dafa am ay prérogatives yoo xam président de la république moo ko moom donc premier ministre waru ci dugg ci joon man dama gëm loolu wàccee ci bi bañuñu ko haut conseil des collectivités territoriales ak conseil économique social environnement mos na lu fi yàgg la mais ni ñu leen wàccee moo Abdoulaye Wade bi mu gañee l'an 2000 dafa ñëw woo Abdou Khadir Sidikho ne ko damay tas assemblée nationale ñu toog 2000 ba 2000 mu door ko tas donc waroon na leen woo waxtaan ca ne leen ñëwee diggante bi diggoon nañu Sénégal suñu yéegee ñu tas Haut Conseil dañuy tas CSE wante nag na ngeen ci waaj comme que euh, ñun député yi bañ nañ ko amul problème suñu defee élection ba amaat majorité ñun dinañ ko dindi parce que dafa am benn geste président Diomaye def le 2 avril ñëpp ko bi président institution bala ñu jiite institut ñëwoon di ko sargal suñu bàjjëm suñu yaay am tamit nga jaay am ay jafe-jafe dox moom moo wàcc en tant que xale ci at mais nekk njiite ñëw sargal ko foto woog moom adduna wërngal këpp rafetlu ko mënu coon def lii nii te ba pare aussi fekkee dañu wax rationalisation mais bala ngay bale kër keneen bala bale sa kër yow nga sax kële sax nga ne moom li mu sax na ko bàyyi nga continuer nga sax loolu aussi xel nangu ko donc bref moi dama yaakaar ne nii président Ousmane Sonko te Justin wax na ko li tubaab di wax héros la un héros ne doit pas être bavard un héros ne te wax fa am sara wax su bëree rek nga donc ñun nañ koy ñaan mu dal mu am humidité wàccee boppam xam ne ni yàlla may na ko lu mayu ñu bëri faluwul de mais tax na nit falu mais loolu ndam la bu mu ko yàq rek bu mu ko yàq dañ koy ñaan ànduñ ak moom tey dem ndax ñoo àndoon ci teewi local législative ndaw la donc na dal na wàccee boppam mu xam ne tey moom moo yore caq c'est important que ñu xam ne ne institution yi ñoom mënuñ koo dindi tant que gagné ñu assemblée na donc réew nax institution la réew dafa am taarix étage la day tegle donc tey les institutions de la république du Sénégal mooy la président de la le gouvernement le haut conseil et comme ak conseil économique social et environnemental oh, conseil boobu nag dafa am aussi histoire dafa amoon conseil économique et social soo seetloo Moustapha kii mos na ko yore Pamara Ibrahima Sagna papaay actuel ministre de l'éducation Moustapha Guirassy papam tuddoon Mamba Guirassy yore na ko Ablaye Wade moo ko fi dindi woon indi CRAES Macky ñëw dindi yooyu donc nangu nañu dañuy supprimer yàgg nañu di supprimer mais niñ koy doxalee moo rafetul moo jëkkul mu amul élégance. merci beaucoup euh, Moustapha Dieng maa ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi Moustapha. maa la koy delloo di fàttale aussi Moustapha Dieng la assistant social coordonnateur départemental Taxawu Sénégal bu Koumpentoum di la sant di la gërëm ci li ngeen ma invité ci par rapport actualité politique. jërëjëf voilà Rewmi FM di la jaajëfal bu baax a baax. merci.